chers internautes je TV ravi de vous retrouver pour ce niveau numéro de Dak Culture Nous maison de la culture am contentement dalal suñu kilifa suñu papa culture plus particulièrement dans le théâtre nous wax Sénégal nous ngi nous dama koy mu nous suñu mbokk yi ko nous ñu jall ci waxtaan bi Père Sénégal ñu ngi lay nuyu. nga suñu mbokk kontaan naa trop. ci li ma tànn woo ma. pour ma wéccoo ak yéen ak seen internet bi. waaw li tax nag ñu jël suñu choix porte ko ci yow ku ne culture ne Sénégal Ndiaye. nga yàgg si trop ci théâtre lañuy wax euh, nekkoon ci trop bi ñu naan daaray Kocc ak ay jamonoy tey euh, balaa ñëw dugg foofu dañ bëgg a xam ban année nga commencé def théâtre. bon théâtre comme ah, sañ naa wax ni bi ma nekkee xale. di nga ko def. Mhm. école boo demee tamit euh, lycée dinga ko def dans la vie courante mais commencé bi dëgg nag wax dëgg yàlla mille neuf dans les années soixante quinze la ak troupe. daaray Kocc. d' accord 1975 ak troupe daaray Kocc. fa lañ la xamee ngay def nag liggéey bu rafet ci théâtre macha allah ba ba tey dégguñu la ci dara. <laughs> voilà papa tey boo ñu doon wax euh, histoire daaray Kocc nan la sosoo fan la fan la jógee nu mu sosoo ak ay jamonoy tey. Euh, fan fan lañ sosoo ñaari troupe yu mag. merci kon dinaa la defal rek résumé historique ak évolution wu daaray Kocc ak jamonoy tey wax naa ko sànq daaray Kocc troupe la boo xam ne bii troupe quartier la woon nekk fii ci Médina ci sanc bi mhm. premier président d'honneur bi ko doon jàppale feu Alioune Diagne Mboor la woon mhm. foofu dëgg-dëgg mhm. moo ñu jàppale ba dem semaine nationale de la jeunesse et de la culture bi semaine nationale de la jeunesse et de la culture bi jeexee Alaaji Ablaye Seck yàlla na ko yàlla yërëm moom ci ñu bokkoon ci groupe yeewu la moom moo xëy suba gis Diop ak dem ci Yalla ci Cheikh Tidiane Diop nene comme yeen da ngeen don def théâtre ci semaine de la jeunesse c'est légui defatu len ko da ngeen di tok di xaraat xaaraat won man de dem na radio Sénégal ba jox nañ ma fa ben tranche pour mu jël théâtre bi diko adapter à la radio ñu tuddé ko les faits divers manam jamono yi tay ya nga dégg donc daaray mo jëk jamono yi tay mais ci sasse Ablaye Seck dafa jël quelques éléments de daaray Kocc ak yu wa jamono yi tay jigéen bi tuddoon xëy dima kunta ba mu déggee ñu sos loolu ba mu demee dellu si li ñu naan créativité acteur culturel da ngay créer moom ci la créer indicatif bi tudd liiti yee liiti yaay jamonoy tey lu ngeen ci wax mhm. mu leer mhm. donc noonu la tur yi demee ñaari tur bi nag dañ doon ànd group yi comprendre wax ñuy dem dem mais mbootaay boo gis mbootaay boo gis mbootaay boo gis dinañu dem yenn saa yi problème day am rupture day am ñu dem ba finalement mënut ñu won djubo té pourtant ño defandoo feuilleton bi ma leen wax tuddoon caaxaan faaxe turu caaxaan faaxe président Senghor hein président Senghor mo moom moo mës a di def discours rek dal né Sénégal war nañu liggéey caaxaan faaxe mhm. jibril Ba nekkoon directeur télévision dégg baatu caaxaan faaxe bobu mu ne baat boobu nag naa ko jël pour conscientiser les Sénégalais sur leur comportement dans la vie ak sen comportement au lieu du travail mhm. mo waraloon premier feuilleton télévisé en noir et blanc caaxaan baaxee donc ko ci nak non la démé jamono tay dem après diggante bi ku ci nekk di recruter à droite di recruter à gauche ñu bari nak dama leen di faral di dégg rek ñen interview ñuy wax fekkewuñu kaña la xamuñu naka la mhm. mais duñu am humilité si pour taxaw naan xaw ma. déedéet du ko def moom je leur lance la moo tax troupe yooyu kenn déggatu leen léegi artistes yooyu ana évolution la rek ah. Mhm. mu ko gisee. Mhm. day am ay jamono. dañuy dox am ay jamono. Mhm. bu ñu dox. mais ko ci ni ma leen ko mën a waxee. dafa sax dikk jamonoy tey. ok parce ko ci troupe quartier la woon. nekk fii ci Médina ci sanc bi. ñu nekkoon ay xale. di dem fi ci stade Diop semaine nationale de la jeunesse et de la culture. Mhm. région yi Sénégal Dakar pendant les fêtes de Pâques di def ay compétition théâtrale ñun nak dañ dan seetaan ba mujj gi nous ne ñu nekk seetaan kat nous nekk acteur. Mhm. loolu moo tax ñëw acteur théâtre pour représenter la région du Cap-Vert à l'époque ci semaine nationale de la jeunesse. Eh, eh, waaw de la culture c'est vrai ñu gis ne bu njëkk ba da nga daan xëy benn jour nga jël say doom ne kañ jam fu su mel ni soladon daal di seetaani ji pièce de théâtre loolu nekk lu rare jamono ji du ma ne amatul sax mais bëriwul lan moo tax euh, artiste comédien yi produire tuñu créer tuñu ay pièces de théâtre ñi ni di dem di seetaani ji comme niñ ko daan defee avant parce que nam nañ ko de ah bon man nit ñi sama yaakaar kenn moomu leen ñoom ñoom moom seen bopp ñom ñoy barométre li nga xamni mom la nit ñi def théâtre mais nima ko gissé nak nit ñi li ñu bëgg xeyna moy fiñu tok théâtre bi fekk leen fa ñukoy sétane muy média yi nga xamni mo xew légui mais sama xam-xam ah terewul ko ba légui ñi bëgg théâtre ñi ngi def théâtre mën na la jox exemple ci yow xeyna faté nga premier jour bi mu lay jëk a gis ngay jouer mais jour boobu da nga ñëw ànd ak sa yaay mu seetaan si la. nga présenté ma sa yaay. te am na jamono xale bu jigéen bu bëggee théâtre yi. waa këram dañ koy tere mu dem. kon xam nga yow soo demee. ba say waajur bàyyi la ñëw di la seetaan si xam na ni kon donc théâtre ni ko nit ñi bëggee. que léegi am na. Uh-huh. am na ay jeunes sport la ñu opté parce que moom la ñu bëgg. mais am na ay jeunes yoo xam ni tey. Uh-huh. culture la ñu muy théâtre. Uh-huh. wala musique. wala danse ñu ngi koy def. noonu laa ko gisee. ñu gis ne comme ni nga ko waxee média yi xëy na moo tax euh, pièce de théâtre yi wàññeeku parce que boo dee da nga nar a déplacé wu dem euh, nga am nga toog ci sa kër mën a seetaan benn téléfilm xam nga da ngay da ngay toog sa kër seetaan ko mais mu am différence trop ak yéen ni ngeen daan jouer avant. yéen di ngeen daan jouer avant ak ñun li ñu nekk di gis actuellement am na différence bu rëy a rëy yow loolu naka naka nga ko gisee. non man je crois que li ñu war a seet thèmes yi la. ñun temps yi ñu théâtre par exemple dañu daan jox ay thèmes. merci beaucoup état bi joxe thème. Mhm. je me rappelle premier thème semaine de la jeunesse fàttaliku dañu ne woon passé historique xam nga tubaab bi. am na noo xam ne nii moom la gisee woon. Mhm. histoire du Sénégal voire de l' Afrique. Mhm. tubaab bi am na nu mu gisee la Joor. Nous numu nu Maba numu nous nous Omar té nous xeyna du la vraie histoire donc année bobu dañ passé historique région yi Sénégal yépp ku ci nek boy ñew ci sa dëkk di nga héros wala saint nga sous forme de théâtre je me rappelle bien la région de Thiès dañu indi Dior nga dem saint bi ñu indi El Hadji mhm. Omar mhm. nga dem Kaolack ñu indi woon selon Faye mhm. donc thème la donc loolu dafay laaj fa dëkk la fa amoon muy buur ba muy euh, euh, héros bi Lat Joor nga def ci ay gëstu ni mu doon doxee nga ñëw nag indi ko suuf forme de théâtre total boo xam ne bii ñu woy dinañu jouer pièce théâtre dinañu fecc lépp dina ci nekk. wala woon. ñu demaat tuuti Senghor ne nañu bàyyi passé historique. jël lu tudd enracinement et ouverture parce que dëkk bu nekk tamit. Uh-huh. am nga sa cosaan. Uh-huh. boo sàgganee. sa uh-huh. cosaan boobu dañ koy jël ba dañ koy fowe. donc loolu nga war a taxaw jamono nag day dox comme ni ma la waxee xarala yu bees yi. du woon loolu moo jëkkoon am. mais ñu jàpp ne théâtre dëgg. ni ñu koy fal mooy li nga xam ni dañ koy def ci scène bi ci plateau bi su xasee ba commencé. ba ba muy jeex ñett taxawoon di jouer. loolu la ko si costume doon joué moom lañ doon joué alors que nag léegi théâtre bi dañ koy jël di ko adapté ak rajo bi ak télévision bi. Mm-hmm. man je crois que loolu la. Mm-hmm. mais terewul que théâtre laa wax fa mu ne ba léegi jógu fa nit ñi ñoom ñooy tayal. c'est ça loolu li nga wax moom vraiment lu ama am solo la dëgg la mais comme ni nga ko waxee euh, dëgg la technologie bi dafa avancé. war nañu mëna tok suñu kër suñu salon di sétane mais li ñuy seetaan ñu jang ci lo xamantene ni nii dinañu éduquer parce que théâtre buñ ko waxé da lay sensibiliser éduquer la wax la wax la deug sans pour autant mu vexer la parfois nga sétane dara bien vrai que nu deug sa mais day melni deug ci yow ba dang koy dund ba fi nga tok da ngay tok diko joy bien vrai que technologie bi avancer na mais pourquoi pas comme ni nga ko waxee côté thème yooyu ngay wax ñuy indi ay pièces historiques comme ku ci melni ay la jor jor mu naa génération bi mujjee juddu bu ñu amul chance bu baax duñu duñu xam bu baax ñom sen sen sen jaloore parce que jàng xëy école bi leen leen koy jàngalee joué tuñu loo xamante ne ñooñu lañ ñuy fàttali ay histoire Ndella Flam Flam Talatay Nder ñun joué nañ ko pas mal de fois ñu bëri tey jii boo leen laajoon histoire bi mën nañ la ko bañ a wax est-ce que duñu indiwaat yooyu ci télé yi ñu ni di ko seetaan bu dee mënatuñoo dem ci salle de théâtre yi ñu toog suñu kër mais di seetaan ay Ndella Flam waaw dema dema loolu yëpp manque de volonté politique bu état bi la mais à qui la faute si voilà man bind naa ministre de la jeunesse yi yu bari ba ci ministre de la culture. comme ni nga ko par exemple tey yow tu es jeune. qui est le héros national du Sénégal. Hmm. xam nga ko loolu nga ko hmm, hmm. est-ce que hymne de la jeunesse. xam nga ko. de la jeunesse. je peux même défier peut-être le ministre de la jeunesse ou bien les inspecteurs de la jeunesse. bu Sénégal demain, ba ni dañu jël Lat Dior. def ko héros national. bu le 26 octobre. est-ce que y a ngeen ko. les <laughs>

ñoom la Lat wax 26 mhm. octobre la woon mhm. fait le tour du Sénégal quelques personnes nous ko nous ñoo ko xam. man ni de maa ngi koy door a dégg. waaw <laughs> man avec la chaleur. <laughs> donc ñun du seen responsabilité. Ah. mais je dis encore une fois pouvoir public mhm. ni ñuy taxawee yenn saa yi bu leen ja saxalee. buñ ko taxawaloo noonu du fexe ba jeunes bu anniversaire ou Lat Joor ou wala semaine de la jeunesse. ñu valoriser ko. tey jii boo demoon une di def examen dinañ national en tant que jeune xeyna mais leen hymne de la jeunesse ko mais contradiction la da nga parce que sujet dafa am solo parce que bu ba sax da nga doon gis ñu def théâtre ci école yi ah, mais loolu gisatuñ ko nu nu mu j'en reviens mhm. Sénégal ñi def théâtre ak ñi théâtre mhm. ministère de l'éducation nationale mhm à na direction bu direction de l'éducation artistique mhm. dañ daan organiser chaque deux ans mhm. festival du théâtre scolaire mhm. ni UASU amé ni ñi don football ni non lañ don des compétition théâtre du trou primaire ba ci ki mais lool la wax volonté politique état bi bu xëyee suba xol yeneen priorité loolu mu teg ko tamit Euh, du du mun a dem. nañ ko ah, relancer waat da nga gis ne daal profité ci sax pour attaquer waat pour comme je man je suis le maire de la Médina par exemple. Mm. Bamba Fall nee na def na théâtre. Mm. bëgg na théâtre. Mm. mais ñaata yoon la promettroon que ni ki tudd Cheikh Tidiane Diop dëkkoon fii Médina bëggoon théâtre Cheikh Tidiane Diop moo créé Daaray Kocc mm-hmm. Daaray Kocc moo ne xalal leen yoonu daara ji mm-hmm. ñun biñ koy wax di ko xalaat bu Daaray Kocc xalalwoon yoon yi kon amaana théâtre télévision du démé noonu ba pratiquement région bo dem tay ci Sénégal amna na ñoo xam ne ñi ngi def théâtre ñun biñu def théâtre so demoon sax ci cérémonie ngénte mariage wala décès bu la nit ñi gisee sax dañuy xawa changer sen comportement parce que dañuy ragal ni bo ñëwee li nga fay gis ak li nga fay dégg bo délo ci suba ga lolu mom ngay war a théâtre mm-hmm. donc recherche bi sax yow déjà dëkk nga ko wala nga romb nit ki muy sëriñ bi muy madame bi ci kër gi muy gardien bi muy planton bi. Mhm. li muy dund dalay woon naa la xay lii lii lii lii mhm. lii daal su ngeen ko mënoo jël def ko théâtre nit ñi xool ko xam ko. Mhm. lu baax lay doon waaw mais nag léegi. lan lañuy ñuy gis sànce bi da rafet na. salon bi da rafet na. coiffure bi. <laughs> rafet na bon lan nga ci mun yow. léegi yéen yéen nga xamante ne yéen ay acteurs yéen ay artistes comédiens yi ban taxawaay ngeen ngeen am ci loolu parce que tamit dëgg la état bi xëy na deful li mu war a def mais ñun yéen ñi nga xam ne ñun ñooy yëngu ci millier bi ñoo nekk ci milieu bi lan la ñu war a def ñun te defuñu ko. ah échanger ak mag ñi ma raconté rek benn fait yàlla na maam Abdou Aziz si ñun waa Daara Kocc mos nañuy voyager jaar këram jak saw julleendoo ak moom. ñu ne ko xale yi de ñooy faral di def théâtre bi ci rajo bi ak télévision yi ñoo fi jaaroon timis jot ñuy julli. Mhm. mais bi mu ñu recevoir xam nga salon xam nga lan la wax lii ngeen di def man de yenn saa yi dama koy faral di seetaan dama koy faral di déglu. Mhm. te li ngeen di wax man sax dama siy jàngale. Mhm. mu ne pole mu sénégalais ah mauvais comportement la. man de dama bëggoon ngeen def benn pièce théâtre boo xam ne bii day am waajoo xam ne bii du def lu jaadu ngeen jox ma ko man. mu joué kooku waaye feebar na fekk kooku soppi jikko ba nga xam ne ni ma meloon te du noonu man ma ñëw gis yoonu baax yi ma def ko xam nga kuy théâtre nga daje ak kilifa gu mel noonu mu daje ak yow wax la loolu soo fa jógee dana la gën a encouragé actuellement nag comme je seen génération la man acteur culturel la mais formateur la en éducation populaire ci théâtre populaire wala ay colonies de vacances yooyu ñuy faral di dégg kërti kërti yëpp te yooyu pour yar moo fàttewu sax indi won nga fi ben projet bu ñu xamné mo ñu jang alphabétisation ah. wolof bi su ma ko ah. jàngee c'est grâce à vous ah, bah, voilà man ñun daara ko ci biñu dor door français lañ doon jouer dégg nañu français mais biñu démé commencer def théâtre ak jamono yi ci radio bi ñu gis ni population yi wolof bi nga xamni mom lañu la wala sosa bi wala joolaa bi wala mandeng bi ci lañu di gëna a ñu ne kon nag léegi nañu jouer à langue nationale. mais téréwul ko nak dañu daan dénk ay liggéey yo xam yi day am pièce yo xam ne yi c'est écrit en français. Ah parce que tamit jamono day dox. Ah nit ki tubaab bi du joggé fële yor pièce su théâtre am soxla Tafa Diop wala soxla Lamine Ndiaye xamni en français la wara jouer mais koku day dem jouer yi français xeyna lolu bu jouer fofu dafa dul nekk à la portée de la télévision wala des populations. mais ñun dañ doon jouer aussi bien en français qu'en wolof. pour mu leer ñu ne l'art ne nourrit pas son homme au Sénégal. d'accord nga ci loolu. l'art ne nourrit pas son homme au Sénégal. c'est vrai. c'est vrai fii ñu nekk tey parce que ma dellu fa en arrière rek attaqué encore état bi parce que li ñu waroon a gën a suuxat infrastructure la fi xawoon a jëkk am sax Sorano la woon ak Senghor. Mm. infrastructure amul woon yu xëy suba. ku mel ni Abdou Diouf ñëw la fi xawoon a nekk sax comme infrastructure lu mel ni musée. Mhm. nga xam ni IFAN la woon mu nekkoon un patrimoine culturel amul xaalis bu ñu ci dépensé wul nga xëy suba rek jël ko jox ko justice nga xam ni da ngay jël la justice teg ko ci kaw culture mais culture dafa war a jiitu ci lépp. parce mhm. que yaa ngi déggee wala déet. Mhm. bon Douta Seck bii ñu nekk ñun mënuñu woon lu weesu ba muy jël mesure yooyu. ñuy bind wala di ko conserver yàlla tax may wax. gis nga complexe Léopold Sédar Senghor bu Pikine boobu man ak suma benn grand bu tudd Samba Wan bés biñ ko defaree ba pare artistes yi lañ ko joxoon culture bi mais mairie bi mairie Pikine ne ñoom ñoo koy jël dañ koy def mairie alors ko conception bi du woon sax pour mairie ñun lu ñu mënoon ñëw taxaw ci bunt bi di contester xam nga lu ñu def police dañu jàpp yóbbuñu man ñu ne ma naka ngay mën a dëkkee Médina di ñëw ba Pikine ngay

biñ ko proposé dañ ko né wa yow président est-ce que do proposé kër gi ko xamné ki mom moom lañ koy tuddé muy Abdou Diouf ne leen mais man administrateur laa lan la xam ci culture ba ngeen ma mu proposé tour mu né ñu ne ko noo proposé bu fekkee ni baax na ñu nangu bu fekkee ni baxul tamit ñu sét wala ñu jappalé la mu né ah man de j'avais de l'admiration pour le comédien Douta sek mm-hmm. gars yi ah alhamdoulillah rabbil alamin waxuma ko de fii ñu tok ci salle bi président Abdou Diouf moo def loolu en témoignage te bu mu génnee keroog kontaan trop parce que gis na ni tous les acteurs culturels wa Sorano corps Sorano yëpp ak yeneen bale yi nga xam ni bokkuñu Sorano yëpp dañu taxawoon fii pour accueillir ko pour remercier tout Douta sec foofu la jógee. bon melul ni mu mel kenn concevoir loon Douta sec? mais un acteur culturel ngeen man acteur culturel la a ay réalisateur ngeen. mais jéem nañu bi ñu joxee Douta Seck suñu amee activité mhm. ñu seet infrastructure yi li nga xam ne noonu la demee mhm. suñu ñëwee ñu jéem ko ci adapté parce que acteur culturel loolu la foo dem rek war nga ci mën a attaqué du ma dugg nag ci sportif yi parce que ci bay dañ daan football ci bayal ba ñu amay sat

bon après il a commencé à voir du jeu. ci dernière pièce bi ko man un DG peut en cacher un autre mhm. Pourquoi pourquoi veux bëgg euh, pièce mhm. tout tout Sénégal niñ je suis ak suñu alal te des pièces lay te pas, ñun nag mënuñu lu weesu ne nit ñi lii la lii la lii la lii la nit ñi nag ñoo war a seet loo xam ne li loolu jubul ñu jubbanti ko. waaw moo tax man ci pièces yi mun naa tudd yu bari mais boobu dafa marqué ba tey jii. ñu gis ne nag euh, théâtre Sénégal artistes yu bari comédiens yu bari tey dañuy defal lu nekk seen dëkk. jouer macha allah liggéey liggéey bu rafet. mais dinañ toll benn stade boo xamante ne parce que liñ ko nemmeeku bari na. Euh, comédien bu si toll benn age bi rek soit suñu borom nattu la nga am feebar ñu naan comédien diw moo feebar ñu ngi koy demal fii ak ñu ngi koy yalwaanal fii ak ñu ngi koy ketal fii yow loolu ban ban analyse nga ci nga ci nga ci mën a indi. parce que dëgg fa yàlla feebar suñu borom a koy tegi kenn ñaanu yàlla suñ borom teg la nattu mais ñëppay te ñëppay feebar mais bu dee comédien la rek ñu fësal ko siwal ko diw moo feebar ñu ngi koy ketal. et pourtant ñëppay feebar. ah d'accord du comédien yi rek ah. voilà dañ ko daan faral di def sportif mais je crois que yenn yi ki tamit. Mhm. nit ki yaay am sa personnalité bopp. Mhm. ak sa ngooru bopp. Mhm. yàlla na ko yàlla yërëm. feu Cheikh Tidiane Diop. bi sos Daaray Kocc ah, feebar na nekk hôpital. feu Abou Camara. feebar na nekk hôpital. am na ñu ko xam yëg ni dañu feebar ñu dem di leen jàppale. man mi wax ak yow feebar naa. quatre mois dix jours nekk dans le coma. mais su ma benn xaritu journaliste culturel bi mu ñëwee seetsi ma dama ko ne xam nga lan laa bëgg nga dimbali ma ba bugguma ci média yi. ñu naan Sénégal Ndiaye dafa feebar dafa tëdd. comédien yi ma si gis mënu ma leen ko tere nag. nga feebar jaaxle wax sa soxla ñu fajal la ko mais daal dama seetlu ni daal euh, yeggalewul nit ki. ñu ma gis ñu woo leen yëpp bañ leen ko defarale tamit jaruñu leen dara parce que état bi ah day colmaté rek ah dañu ñëw seet si la benn yoon. ñaar yoon defal la lii gis nga ba paré fofu ñu la fofu lañ lay faté wat état bi nak defon na ben volonté ba créé won ben mutuelle. pour les acteurs culturels santé bi. waaw bon mais pour ñun ñu dem sax adhérer ji ci mutuelle bi. pour suñu feebaree wala suñu jabar wala suñu dom sax ñu dem faju ji demuñu sax adéré waaw bu mhm. ni nak ku nekk da nga bëgg so tamit ma gëna contre état bi mais tamit état bi mënul def lepp mhm. lenn nak ya koy défal sa bopp bëggal ko sa bop bañal ko sa bop ñu mhm. fekk ci waaw taxaw di rek ñu la massa massa yi massa massa yi du dara gën waaw ma tonton Sénégal père Sénégal lañ lay lañ lay eh, Sénégal eh. <laughs> père Sénégal la mooy état civil doomu Lebu laa dëkk ci Medina bii Lebu Sénégal Ndiaye turu cosaan la mooy sama tur noonu laa tudd sama maam tuddoon Sénégal Ndiaye. Ah. waaw ok. ngeen may ma nag ma terminé. kaara balaa ngaa terminé ah. <laughs> ñu am lu ñu for ci weewu béy ndax ñun moom dañuy for dañuy for ci weewu béy rek ñun. mu ma tàng ko déedéet tàngal. <laughs> voilà euh, ñu am lu ñu for ci weewu mu ne da nga am sa maison de production bu tudd Sénégal production. waaw waaw parce que li ma wax rek ku nekk da def dara. mais bo démé ba yenn saa nga gis lo xamné li sa intérêt personnel la doto mëna préserver intérêt groupe bi man dama daan répondre ci ay appel de scénario comprendre ñu may faral di jël samay œuvre nan ma sa œuvre yi dañ ko bëgg adapter à la radio wala dañ ko bëgg adapter à la télévision mais pour mu dem nak dang koy structurer organiser ko légaliser ko et eh, comme je porte un grand nom. Mhm. Sénégal ah, Ndiaye c'est un beau nom un beau label. Je me ma pourquoi pas je tudd Sénégal Ndiaye. production kon sa maison de production mën ne see xaar ay ay ay ay série yu bees ak yu mel ah xëy na yow da nga amul chance bokk ci mais je crois waa ARCOS yi hmm. am na ñu ci bari ñoo xam na ñii bi ci hmm. seen wërsëg nekkee woo nga leen boole boole naa leen boole naa leen ci hmm. parce que production rek loolu la ko loolu la ko comédien bi la convenir wala kële wala woo nga kii xëy na disponible ci cachet nga woo keneen nga ah, naa yaakaar un jour woo ma joué la yow gis na fàtte naa ko ah, waaw man fàttewu ma <laughs> nañ torop nga ni ban message nga bëgg a lancer La la bëgg comédien yi am ko ndax ku melni ni sec Seck tuddé ñu tuddee kër gi mhm. Ah? Mhm. ci li ma suma ben doyen bu tuddé Serigne Ndiaye Gonzalez mhm. suma ben doyen bu tuddé Serigne Gonzalez néna dañ doon jouer Sorano la tragédie du roi Christophe président Senghor mi ngi tok au fouet baa ñuy toog Aimé Césaire jouer la tragédie du roi Christophe bi poser hein Senghor mais Bruno Diatta demal nga wax Douta sec, mu ñëw nuyu mais Douta sec, c'est loge ba la mhm. mais bi Bruno Diatta ñëwee daf ko ne mhm. le roi Christophe mhm. est dans sa loge quiconque a besoin de lui vient le voir Bruno Diatta dem ci s'engorge ne ko ah lii de la mais le nee na ku roi Christophe fa mu nekk nga fekk c'est fa Senghor am flair am goût jaayul xadar daal na il a parfaitement raison bi ñu joué ba mon mu fait Houphouët-Boigny ak euh, Aimé Césaire dem féliciter ko encourager ko nous non la ñu jouer, mhm. dugg si mhm. Douta accueillir les ne da je voulais mo leen ñu ne ko non non non li nga def jàpp nañ la ci wek nañ la ci moo bëgg a wane rek comédien mhm. ñu jël ci référence kooku ku dajale sommité

spectacle bu ma mosoon a gagné. kii yow la waaw kii man la. cérémonie de clôture benn biennale la woon. Hmm. ah ma inspiré woon nag tudde woon ko les Lébou accueille les biennalistes ah waa direction de la biennale xool ko apprécier ko jëloon sama projet comme man na mi josi suis conservateur sanc ba falaa laa juddoo penc la fa laa màgge ma jël ko yóbbu woon ko fa photo bi nak kérok comprendre li ngay wax mom mhm. don sama tenue parce que il fallait tamit ma sol sama mhm. tenue cosaan lébu parce que je suis un lébu et très très enraciné <laughs> waaw motax bi may yow mhm. ma xol bi ma solo ba paré rek gis photo bi mané ma indi walé ko quoi macha allah waaw nice na trop hmm. ah Sénégal contane nañ torop temps bi moo teunk tënk waaye doyaluñu ndax euh, ku melni ni yow waxtaan ak yow day tax ñun ñu gëna yokko parce que ku la jiitu si néeg bu lëndam moo la mën a wax fooy toog te vraiment bu dee expérience am ngeen ko kon te ñun ba ñu ñëwee ba tey si seen ay loxo lañ nekk lu bari tey yéen a ko def si ñun. Ah, waaw ngeen jéggal ma rek fi ma waroon commencé suñu benn xarit suñu doomu ndey bu tuddoon Seydou Ndoye dëkkoon ci sanc ba. xëy na ci sport bi lañ ko xamoon. Mm-hmm. waaye ku bëggoon culture bi la ak koo xam ne kii ku bëggoon cosaan la. Seydou Ndoye doom la woon ci Adja Aram Dieng. moom ASC Sànq ba li doon def. sur le plan culturel ba activité bi ñu mujjoo def ci vacances yi muy benn patronage chaque jour suñ ko daan def ma nga fa woon te ñëwul woon rek toog ak jëmam jàppale bi nga xam ne daana ko war a mën def sur le plan financier tamit dina ko def kon tamit ñu profiter ci occasion bi pour yëgal leen ko ñaanal ko yàlla yërëm ko yërëm ko xare ko àjjana waa kay papa Sénégal Ndiaye comme ni ma la ko waxee kontaan nañ trop àndoon ak yow ci suñu numéro d'actualité bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di remercier suñu mbokk internet yi ñuy saytaan di remercier ñi nga xam ne ñoo jàpp si liggéey bi waa équipe technique bi monsieur Sow monsieur Coly ak monsieur Ba voilà di leen remercier bu baax di remercier aussi monsieur le directeur de la maison de la culture Douta Seck moom moo ñu facilité ba ñu mën a def suñu enregistrement bi di leen jox rendez-vous très prochainement incha allah si beneen numéro d'actualité ak beneen invité merci beaucoup